yor di yeewu kon yooyu nelaw yaa ci d'accord te nag boo naree dem fekkee ji gàmmu mu nar laa jural faat waxtu jëratul dem ndax taxawee julli ca waxtu wa moo ëpp doole fanaan ci gàmmu kon nag ku ci fanaaniti gàmmu bul tëdd ci sa lal mukk lu dul da ngaa waxtu yàlla yu ba pare door di tëdd su ko defee nag heure bu la yàlla yemale balaa tusubaar fekk moom yeewu nga mu nga kon nag waaye nag su fekkee da ngaa nelaw ci heure ba nga war a nelaw seytaane man la nga biddanti ba nga yeewoog suba jot na ba jant bi fenk nga julli ca biti waxtu wa kooka xamoo ca bàkkaar kon nag mi ngi noonu looloo waral fuqahaw yi di bañ julli jeexe ba pare toog fa di waxtaan mbaa nga toog fay seetaan télé sharia dafa bëgg booy julli jeexe rek li nga man ci naafi la nga def ko teg ca safa witar dem gaaw tëddi lu tax ñu ne gaaw a tëdd ndax gaaw a tëdd mën na laa yóbbu ci gaaw a yeewu waaye yéex a tëdd di ataaya nekk fa ba une heure jëm deux heures ngay door di tëdd mën na laa yóbbu ci yéex a yeewu yéex a yeewu mën na laa yóbbu ci yéex a julli suba te loolu tamit bàkkaar bu rëy rëy la su laay nag li ñuy bañ lépp ci guddee tëdd nekk fa maanaam julli gee di waxtaan mbaa seetaan télé lépp lañ ca bañ lépp waxee la ba mooy rek biddanti ba bañ a julli suba ca waxtoom ba waaye bu loolu lépp dàqoo su fekkee yow bokk nga ci ñoo xam ne loo gud guddee tëdd buy waxtu way jot fekk na yeewu nga su boobaa loo guddee guddee tëdd ra nekkut ca loolu nag ñi ko man bariwut yombut kon nag teel a tëdd daal moo gën a baax moo gën a tamit lémtu ndax balaa waxtu waa jot fekk moom yeewu nga nga mën a fexe ba julli waxtu wa ca waxtu wa ndax julli kat ci waxtu dafa am doole mais sàgganee waxtu bàyyi ba mu passé amuloo benn nganta wala ngantay caaxaan yoo xam ne yaa ko keree nga door di ko julli borom xam-xam yi nee nañ kooka ku ko def moo gën a rëy bàkkaar nit ku ànd ak waajuram wu jigéen fanweeri yoon yaakaar naa loolu nag fa la bàkkaar mën ci biti waxtu taamoo benn nganta bàkkaar ba day na ni nit ku ànd ak waajuram fanweer yoon su ko defee nag kon waxtu yaa ngóog ngant yi kon mu ngi noonu ñaar la ci tudd waaye des na yeneen yu bari boo demee ci yeneen téere yi dañ la ko limal yeneen ngante yi bokk na ci ab yéeféer la woon mu yéex a tuub toog a toog ba nga xam ne tusu baar julli nañ ko toog lu yàgg mu door a tuub ba mu demee bay sangu bay ñëw di julli fekk waxtu woowu moom passé na moom waxtu wu mu tuubee rek faaw mu julli ko moo xam ba muy dem bay laab sax ba pare fekk na waxtu wa passé moom waxtu moom fokk mu julli ko kooka nag julli ko mu julli ca biti waxtu wa te fekk na maanaam ngant gi mu yéex a tuub moo ko waral ak sangu ma kooku moom xamu ca benn bàkkaar ñaareel ba mooy jigéen gu yore woon reegal wala mu yore woon dereti gësin yàlla dogal deret ja yéex a dog toog na daal ba nga xam ne julli nañ tusubaar ba ci kala deret ji door a dog yàlla dogal mu dem sangu ji ba muy pare fekk ma ngi ca dernier wu muxtaar ma wala ma ngi ca cati waxtu wa kooku moom bu paree nag day dem julli gi tusubaar julli takkusaan fekk jant bi soxagut moom mi ngi seen biir waxtu ya su ko defee nag kon kooku yéex gi mu yéex a julli waxtu yooyu xamut ca bàkkaar ndax ngant la loolu la bokkoon na ca ngant ya mooy xale boo xam ne dafa yéex a masoor toog na ba nga xam ne maanaam eh, julli nañ tusubaar ba ci kanam muy door a mësoor door di ko ñëwal mu dem di sangu ji ba muy pare fekk maanaam tusubaar passé na mu dem julli ca daroor yu ba kooku tamit xamul ca benn bàkkaar moo xam tamit tàkkusaan la ko def mu julli ko ca daroor yu ba kooku tamit xamul ca benn bàkkaar ndax yéex googu moo ko ci war a yéexal bokk na ki tamit ki xëm ba muy ximaliku fekk maanaam ma ngi ca wetu dernier waxtu wa su boobaa tamit waxtu woowu tamit ñu ximaliku na dem gaaw jàpp mën koo julli mu ngoo kon daal yooyu la ñu lim ca nga ca ngante ya bokk na ki tamit koo xamee dafa yore liggéey boo xam ne su ko bàyyee bakkan mën na caa faatu wala alal ju bëri yàqu ca mu ngi mel ni tey médecin yi nga xam ne tey ña ngi ca bolog yi di opéré andiñ lañ la benn benn malade boo xam ne cas urgent la nga jàll bi ku nekk ca di ko toppatoo ba nga cay parek fekk waxtu wa moom passé na nga julli ca biti waxtu wa maa nga julli ca dara riiw ba kooku moom xamoo ca benn bàkkaar mais yool sax nga cay am ngir taxawee ki nga xam ne yaa ngi ko doon taxawee bakkan ngir di ko sooyee ngir mu dund ak yeneen ya ca aju waaye nag ñu déggee ci ne nekk sa tool di bay du nganta soo amee diine booy dem yóbbaaleel ndoxam jàpp fu tusubaar fekkee la ca tool yi nga jàpp bu la fa tàkkusaan fekkee nga jàpp boo naree guddee tamit sax nga jàpp door a ñëw su ko defee tamit ka nekk magasin di jaay du ngànta su waxtu way jot rek na bàyyi lépp lu mu doon def yàlla bi ko jàpp julli door a continuer waat ca ndax dana tax loola mu doon def mu barke xaadimu rasul daana wax ne lépp lu di def ba waxtu jot bàyyiwuloo ko nga continuer di ca continuer rek booba liggéey moom dootul xamati barke waaye nag su fekkee da nga bàyyi waxtu wa jot nga bàyyi li nga doon def dem julli ji loola nga naroon a perte sax yàlla dana la ko soppandil ko ab barke te nag barke nag jëmm la maam xalifa ne du jëmm waaye jëmm jum nekk ñi xam ko kon nag yaakaar naa ne daw barke moo ëpp dal daw bénéfice bu bëri ndax bénéfice bii ngay daw ak client bi ngay xëccoo ba tax ngay faat waxtu wi xamuloo alal ja da nga ko alaloo wala déet kon nag waxtu ngoog lu jar a bàyyi xel la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon nag yooyu lenn la ci ngànte yi la waaye ngànte yi lu bëri la su dafa am ay waxtu yuñ tere ku fa naafila waxtu yuñ tere ku fa naafila nag la bëgg a jàngale nii ku nag ku nekk nag war na koo bàyyi xel ndax bu heure ba jotee bu mu fa naafilaati moo tax mu ne walaatu salla defut julli naafilatun naafila baada salaati subhi gannaaw jullik suba fuñ xasee julli suba fajar xar nga xas julli suba ba pare amuloo droit naafilatee fi ba kañ mu ne ila irtifaa'i shamsi dem ba ca yëkkatiku jant ba fi ñu jullee suba ba bay jant bay doxee ba ay côté neuf heures amuloo droit naafila fa looloo waral ngay gis julli korite yi naafila la ak julli tabaski yi moo waral ñi koy yéexe bàyyi ba jant bi fenk ba yëkkatiku ñi door door a dem di ko julli ji dañoo bañ dugal ko fuñ si ko fa naafila léegi nag dafa boole ñaar yuñ sib moo séq benn bu xaraam li ko doree fi nga jullee suba ba fi jant bi di fenkee mais fenk gut heure boobu yépp sib nañ ko fa naafila mais nag heure bii jant bi fenk moom xaraam na ku fa naafile fekk ba jant bi fenkee ba jeexal takk bu jant bi fenkee ba jeex takk ñu sib ko fa naafilaati fekk ba muy doxee lu sori ba yor yor ba maanaam dugg jëm ay 9 jëm 9 heures demi foofa nag la ñuy door a bëggee nga door di fa naafila waaye jëmmi jant bi heure ba muy fenk moom bëgguñ ko fa ku fa ku fa julli moo waral xatta boo doon jàng alquran ba hegg ci aayab sajada muy aaya yi ñu war a sujootal fekk jant baa ngi fenk doo ko sujootal ibnu omar nee na julli naa ci gannaaw aboubacar ak ci gannaaw omar ibnul xataab ñu jàng ba hegg ci aaya boo xam sajada waaye bañ ca xeggee ñoom ñooñu maanaam sujootaluñ ko naka noonu boo fi xamoon ab néew heure bi jant bi fenk kenn du fa jullee néew lu dul ñi ragal ne néew bi kat buñ ko julleewut mu yàqu su boobaa nag daruriyatu mooy tax ñi mën koo jullee heure ba jant bay fenk ndax ad daruraat tubixul mazuraat kon nag ñaar yu ñu sib moo séq maanaam foxaraam moom daal fi nga jullee suba ba fa jant bi fenkee bu fa naafila heure ba muy fenk nag moom rawatina bu fenkee ba pare sib nañ ko fa naafila feek ba muy demee ba ba ba ko ba nga xam ne yoor yoor bi ma ngay dugg kon nag ñetta ngoog ci yuñ sib ku fa naafila muy waxaat beneen wa ba'da salaatil asri gannaaw jullik tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ci mazhabu malik ila salaatil maghribi jëm ba ba ñu jullee timis la wax fee rek la ko waxee foofu da koo boole dafa bëgg wax ne fi nga jullee tàkkusaan sib nañ ko fa naafila ba bay jant bi soxee waaye heure bi jant bi so xaraam na ko fa naafila boo fa xamoon am néew doo ko fa jullee lu dul nga ragal ak yàquteem boo fa doon jàng ayab sajada doo ko sujjoot waaye nag bu jant bi soxee ba pare tamit sib nañ ko fa naafilaati feeg ba ñuy jullee timis ndax fi jant bi soxee fi ñuy jullee timis naafila xaju fa boo fa nekkee ne yaa ngay naafila rek mën ngaa fàttal waxtu timis wi kon nag boo bëggee naafila xaaral ba nga julli timis ba pare nga door di fa naafila loo bëgg nga naafila ko foofa su ko defee nag kon ñaañ ba tey banee na ngoog mu des bii nag muy wax waxoon na ko waaye dafa am lu mu ci bëgg a dolli mu ne wa baada tuluuil fajari gannaaw xarug fajar te bu ñu xasee salaatu xayru min an mi sib nañ ko fa naafila faw mu ne ha ilal wirda ndare ab dog li naa imin ñeel aji nelaw anhu walis dog ba luy dog loolu mooy dafa amoon ku baaxoo woon bët bu set balaa tëdd wala bu tëddee ba guddi gi xaaj jëm ay quatre dana yeewu naafila fa fukki rakaa wala mu naafila fa juróomi rakaa wala daal lu yàlla man loo ko moo xam ñaar la sax baax na yàlla dogal nag tey mu sonn xam naa ci liggéeyam ju liggéey rek jàllar bi ku tëdd nelaw ba mu tëddee nelaw nag ba mu yeewoog dégg ñuy salaatu kooku nag may nañ ko mu julli dogam booba mu daan julli ñaari rakkaa la ñeent la juróom la mu julli ko fa ba pare gaaw julli ñaari rakkaay fajar gaaw door caa teg ñaar rakkaay suba su ko wóoree na bër du set ca diggante ba waaye nag su fekkee ba mu yeewa fekk na salaat nañ ba bëri ngi bëgg a set xam ne dara xaju fa ñaar rakkaay fajar sax xaju fa boo ko fa naree julli sax fekk bër set kon bàyyil sax ñaar rakkaay fajar yi bàyyi dog ba su ko defee nga julli ñaar rakkaay suba yi nga bàyyi xaar ba jant bi yëkkati yëkkatiku nga door a julli sa ñaari rakkaay fajar ya ñaar rakkaay fajar moom lu foor la bu la faatee da nga ko fay fekk bay tusubaar di jotee waaye bu tusubaar xasee jot nag passé na kenn dutu ko fayati kon nag mu ngoog borom ak dog a ngoog mu ngi noonu waaye koo xam ne na yow yaa nelaw ci sa coobare bàyyi dog ba bëggoo ko woon a julli boo xeewoo éeri fajar timit doo fa ci dog ba waaye daf fekkoon da nelawoon ngir nganta sonn te baaxoo nga dog bi bëgguloo mu rëcc la nga nga eewu bi ñuy salaatu kon nag foofa mën nga faa julli julli fa dog ba dara du fa nekk moo tax mu ne ilal wér da ndere dog li naa imi ñeel aji nelaw xana walis dog ba foofu dee moom bañuñ ko fa waaye boo xasee julli ñaar ñi xas maanaam salaatu xayrum ne naw mi ñaar rakkay fajar rek lañ may nga julli ko fa looloo waral sax ci mazhabu Malik soo julee ñaari rakkaayu fajar ci sa biir néeg gannaaw bi ñu salaatoo dëgmal jàkka ja même boo demee doo def tahiyatul masjid boo ñëwee da ngay toog wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñeenti yoon bu imaam taxawalee suba nga ànd ak moom su fekkee nag dañoo salaatu rek nga gaaw daaw dem ca jàkka ja fekk dafa goo ñaari rakkaayu fajar soo ñëwee fekk taxawalagul julleeg suba gi gaawal nga def ñaari rakkaay fajar su ko defee nag léegi bu jeexee bu imaam taxawalee suba nga nekk ca su fekkee tamit dafa guloo ko nga ñëw fekk ñi taxawal julleeg suba bàyyil ñaari rakkaay fajar ya nga ànd maanaam suba gi soo jullee suba gi ba pare nga bàyyi ba jant bi fenk ba dox loo xam ne yëkkatiku na nga door a julli foofa ñaar rakkaay fajar waaye daal dama bëgg a wax ni soo julli woon ñaari rakkaay fajar sax sa néeg soo ñëwee ci biir jàkka ji amuloo droit naafila tey fa soo ñëwee rek da ngay xaar suba gi su ko defee bu suba gi taxawee nga daan ànd ak moom moo tax sax bu jee masabu Malik ñoom dañoo jàpp ne tahiyatul masjid naafila la moo waral sax foofu doo fa mën a def tahiyatul masjid léegi nag fi ñu sib tamit ba tey bokk na ca wa inda juloosi imaamil jumuati ak fa toog ak imaamu jumaa ja alal minbari ca kaw minbar ba imaam bu xasee taxaw ca kaw minbar ba commencé na xutba wala commencé gut rawatina mu dem ba ca dariñeeru xutba ga foofa nag ci sib nañ ku fa julli ku fa naafi la liñ bëgg rek boo ñëwee toogal rawatina nag ku toogoon yaa ngi toog toog a toog a toog ba imaam commencé taxaw di xutba te yow yaa ngi woon ci biir jàkkañ nga ne maa ngi jug julli kooku sax lañ gën a sibati moom kon nag kii dugg si tamit ci bu Malik fekk imaam ma ngi ca kaw minbar ba kooku dañ ne ko na toog waaye bàyyiwuñ ko ak loxoy neen boo demee ci aadaabul masjid bu Seydil Hadji Malik mu ne su boobaa wax nañ ko ne mën naa wax subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wala akbar benn bu ne ñeenti yoon su ko waxee am na yoolab ku dawal ñaari rakka yooyu mu naroon a nuyoo jàkka bu dee nag danga sukkandiku ci saydu saabiq mi nga xam ne moo liggéey fiqhu sunna moom d'accord na ne boo xamee ne ni imaam ma ngi ca kaw min barba commencé na xutba commencé gut sib nañ ko fa naafila waaye moom dafa ne tahiyatul masjid du naafila moo waral moom mu ne may nañ la soo ñëwee nga nuyu jàkka ja ñaari rakka te oyofal ko moom Seydou Sabiq loolu la gëm waaye nag bu dee masa bu Malik ñoom dañoo jàpp ne lu dul farata rek naafila la moo waral boo xasee ñëw fekk imaam ma ngi ca minbar ba toogal waaye bàyyiwuñ la ak loxoy neen man nga ko remplacer lii ma wax la subhanallah walhamdulillah wallahi la wallahu akbar seen sukkandiku waaye nag moo doon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mos a taxaw di xutba benn waay bu ñuy tuddee salik ñëw ba nga toog yonantu bi ne ko jugal nga julli ñaari rakka te oyofal ko léegi nag ci la ñu bëri jëlee ne kon nag ku fekkati imaam di xutba mën ngaa julli ñaari rakka te oyofal ko nuyoo ko jàkka ji ibnul arabi borom xam-xam bu mag la ci mazhabu malik mu ne sa lig moomu boo gisee yonent bi ne ko jugal nga julli ñaari rakka te oyofal ko da ko doon yar ngir ku nekk ci dëkk ba ci madinatul munawara toog a toog ba yonentu yàlla muhammad tam lëmu sallallahu alayhi wa sallam taxaw di xutba ngay door dugg ca jàkka ja bëgg toog yonentu ne ko jugal nga taxaw ngir niñ gis la yëg ne xam nga lu mat yeddaange moo waral kooka ba ni mu génn àdduna ña daan njëkk ca jàkka ja lay bokk waaye mos ta bokk ca ñay tardé waaye ba ko yonentu bi waxee tamit ba ni yonentu bi génn àdduna gisuñ benn hadis bu ñu wax na yonentu waxaan na ko keneen kon yonentu da ko doon yar mais yaraale na tamit ñeneen ñi nga xam ne ña nga woon fa ñëpp fekkee ko kon nag ku toog xam ne ku dem ci njëlbeenu jumaa xam nga yoolab ku jaamoo yàlla lu toll ni gëléem ku dem ca waxtu ñaareel wa am nga yoolab ku jaamoo gàtt moo xam maanaam nag la wala ma ba ci ba ci xar